asalaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax baax baax di amaan mbégte bu baax man Abdou Aziz Pouy war leen indil ay leeral yu jëm ci suñu chaine bii di VIP TV ak VIP production VIP TV en avant ñuy commencer ñu ngi tamit féliciter ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy suivre bu baax a baax parce que gis nañ ne abonnement yi mu ngi yokk follow yi mu ngi yokku bu baax a baax a baax waaye nag bëgg nañ ngeen gën ko yokku bu ko defee ñuy gën a góorgóorlu di leen andil ay affaires yoo xamante ne dafay doy waar ba su ngeen koy seetaan seen xol di féex kon ba tax na ñu war leen na nag leeralal tuuti si suñuy concept yi nga xamante ne ay concept d'émission la ñu koy amal fii ci VIP TV comme lu ci mel ni tey jeune entrepreneur mu ngi jàll ci VIP TV ki koy présenté moom mooy man mii di Abdou Aziz Pouy am nañ fi tamit émission boo xamante ne ñu ngi koy wax ziyaara ziyaara tamit dañuy dem di saytu daayira yi saytu daara yi ak ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci wàllum alxuraan naka la ñuy toogee ki amal émission boobu ñu ngi koy wax Serigne Cheikh Touré ma am nañ tamit émission boo xamante ne dafa yëngu ci wàllum hip hop maanaam bu ñu ne hip hop mooy artiste rappeurs yi nga xamante ne ay jeune talent lañ nekk fi émission day dem wër ñooñu fexe ba gis leen ngir mën leen génne nit xam leen moom mooy hip hop show mbedd présenté moom mooy Nigazak am nañ tamit émission boo xamante ne dafay jëngu ci wàllum art ci wàllum musique ci wàllum mbalax comme ni nga xamante ne moom lañ ko xamee comme xeetu ay bongo baax na bañ na ko ba nu ñu ko tuddee aaru bongo émission boobu itam euh, am bongo moom moo koy présenté bu ñu jógee ci loolu tamit am nañ tamit benn émission bu ñuy wax gis gisul làmb mooy jëm ci wàllum làmb bu ñu nee gis làmb rek sa xel ku nekk xam na ne ci wàllum làmb ci wàllum sport ku koy présenté mu ngi tudd Modou fay kon loolu moom mooy sunuy concept émission yi nga xamante ne moom moo feeñagum waaye nag des na yu bëree yu bëree bëree bëree bëri yoo xamante ne ñëwagul ba tax na ci loolu ñu laal tuuti ci VIP production ndax am na tamit ay liggéey yoo xamante ne commencé nañ ko fa comme lu ci mel nii benn série boo xamante ne ñu ngi ko tuddee Bugs am na comédie am na jàngale boo demee ci Bugs bu ngeen duggee ci VIP production di ngeen seetaan bande annonce bi te sax dinañ ñëw ci bande annonce bi bu ko defee ngeen xool ko delluwaat duñ leen ko nettalil yéenay dem xool ko dem dugal seen bopp na ngeen sax dem abonné avant tout bu ko defee avantage lu dugg mu bañ leen a réer kon ñu dem seetaani bande annonce bi te ñëw. nga jël li gën a am valeur ci yow li gën a am valeur sa am ko nii ci téléphone mu muy muy ay ween waaw ñun dañoo xamoon ni fii mooy terminé doo wax ndànk fii mooy terminus bi wàcc leen bi ma leen xoolee naka jekk laa xam ne ay wadd ngeen. waaw yow yaa ñu gën a doon wadd yaa ñu gën a doon wadd. yow yaa soof. ñuy jéegalu noo tay. man ngay jéem a teg di ah? ah sama xaalis pour yow dinañ ko lekkee noon ah sama xaalis pour yow ngeen ko lekkee noonu ah kan kan moo la tegloo dil bi wala yow la yow pour yow nga ah dama la waroon dóor baa bi sax nga teye benn yoon waaye yow li nga xam ne man sama xaalis lekkwul waaye ah, da ngay yóbbu ñeent téeméer a def na sama baaraam ba waay gone gi boobu fi ñëwee rek gis nga waa ji waykat bi ndongoloo mi faaw ma dem këram seet seeti kan ndongoloo yow ndongoloo mi ba mu gaañoo la da ngaa bëgg a dem ka demal ndongoloo daa gaañ comme ni ngeen ko gisee noonu bande annonce bi xoromu na trop nag reetaandu na waaye nag bëri na ay jàngale ndax gis ngeen booy boobu xam nga nekkoon ci àll ba sonal ay waajuram bu jigéen xam ba tax na mu indi ko jox ko nijaayam pour mu tàggat ko waaye gis nga fu ñoom ñaar nu ñuy dundee ak fu ñuy mujj loolu nag ñun duñ leen ko nettali yéen a koy dem xooloo ko seen bopp wala ngeen topp VIP production bu ngeen demee abonné bientôt incha allah bu commencé daw di ngeen xam. diggante jarbaat ak nijaayam ñoom ñaar seen dund boobu ñu nga xamante ne ñu ngi koy dund foofu si atelier am muy nekk loo xamante ne lu am solo la kon nag noonu lañ leen ko waxee VIP production boobu tamit chaîne boppam la bëgg nañ aussi ngeen yokk abonement yi bu baax a baax te chaîne la boo xamante ne moom it ay wàllum série cinéma téléfilm publicité ak clip vidéo foofu lañ koy jàllale mais bu fekkee wàllum TV bi moom comme ni leen ko diptalee émission yi ak euh, actualité yëpp ñu ngi ciy liggéey mu ngi ñëw waaye nag nangeen ñu xaar te koj ñu teg leen foofu seen baaraam ñu dem te ñëw te leen sàkk aussi ngeen yokkaat abonné yi bu baax a baax a baax ndax moo ñuy gën a tax góorlu jërë ngeen jëf VIP TV VIP production optez pour une meilleure qualité